wax sama yaay yal na ko yàlla yërëm xaari aljanna ndax lepp moma ba ma tanale bay bu baax man man dama naan senegal man ma ci gën bàyyi ni may waxe ma ci gën yaay man ma ci gën bàyyi jur nañ fu ñu wara juré yar nañ fu ñu wara yaré yare def ci ñun lu milliardaire am ta def ko ci doono sama papa mi ngi def na 28 ans de service at bi muy def euh, retraite lay door am kër ndax lan njabot ci école bu baax lañu jaar ci ay conditions yu baax la té ba nit ñi dañuy dem di wax ni ay def euh, Aliou Ba ay domam dañ ko jiital mu yar ni nak yarut beewal ay domam kon nak tay ji bu ñu toogee ba fi ñempinta ñempinta ñempinta gilor demal do ala fo biro mo garata wona bureau laamu wona bureau goɗɗo wona ɗumo ko galle seeren gara e bureau ɓoota paɗe ma so wona sa sakkina ko allah e needi so a yettii on tan wata ma haymin hoora gol fof wata parma enen fay gonnoɗaa pat kono so bureji goɗɗi gonno kadi manasiɗat ɗum ko goo ko leedi ɗummen ngel no muuɗo muuno toone kala arɓeɗo hay so kadi ɓe jogginoo comtiɗi ƴeewani so kadi woni keewi hessude haa caasa coomtigunat ɗumne kadi ko e leedi makko eywa gongel ngel allah n hokkimo wune neɗɗo no heewa ganndal tew alaa wune allah n hokkimo woni kala dewɗo ɗo e formation alhamdulillahi rabbil alamin hokkamo hen o waɗe muɗum ko jogui ko allah yanta hen so yeehi wona darogal ko wondi ɗumne kadi e jettoma e ɗum eyyi wondiɓe makko ɓe kadi alhamdulillahi omo nanodiri mumen kay alhamdulillahi laawina biir machallahu defanno ay génération yi mbaɗi mane so fekkente ne annde bi rafetlu won ni fi jogee dem so len sohlaa ɗum ñoo mais tey tey su waxoon nañ ñun ñëpp dañu daj si feneen ñoom ñëpp koy ndax ànd bu rafet nii ànd ak moom tamit maa ngi leen sant bi leen gërëm ba dalee ci Samba si ak Seyni Saaro Sarr ak ñeneen ñëpp kër gi dañoo koo def seen i kër man nag sama diggante bi yëpp yàlla rajo bi bi kay dafa ñëw ngir ñu bay suñu waar yow yàlla moo nu boole Cheikh na Tidiane moo nu boole ndax ci jaww fi kamaal daa la xamit ma nekkee ci sama buntu kër ci piliyaan beneen woonu almaam ma dégg yaa ngi firi jawatul kamal firi bi neex ma lool lool lool ndax man ñaari système ci farikatu tijaani ñaari bërëb ci farikatu tijaani salaatul faati ak jawatul kamal lu ma wax na ne am na lu ma ci ko nden mawneya so yiɗo jogoo diplomaji ha heewa so yiɗo wata jogaa diplomaji min ko ɗon woni diplôme sabu nenam alhamdulillah rabbil alamin ko debbo moƴƴo leydi amin fof ala mofon se maɓɓel wonde o yahata taw mbiɗa famɗi haydara ala ko yi e nafoore am so wonata ko banggue duwaw te ɗum no kadi wona tan ndennan mi yettode nde jaggumomi gila nden ha do mi sansade mi sansata mi mo kadi mi accata weli mi accata metti mi accata wuli mi accata mudi mi accata heddo noon saha fof min pelmodirat kono somin pelmodiri kadi min kaltira min pamodira caggal mudum allah wadi o waddi en ha gandodirɗa e he guittuɗa teddungal jibini ngum bi halfini ma mi mako bi ko ɓiye jabbimomi kadi ko ƴiyam ko bange kala bu ko mom ko wata kala ko goppinmomi o oppo kala bu ko mom wat ko rewi allah jokketta hannde ka da hokkam ndem nden ɗo jamirol nden ɗo jamirol ka ha hannde kadi ko heddi e mayri awma da te ɓuri mako dara ɓurile mako dara hana ñaan ndir dello ko jukkal nak yalla jaaral na ma ci yow pour na la tey ngir tarbiyu ci moom jaare ko ci moo tax même bu dee malaaka wala jinne su ñëwee sama yoon nekkul moom na la bàyyi tey ma la bàyyi ko si kanamam wax naa ko si gannaaw te su ma koy laa ko wax laa am lu ko yàlla may chance la ci man chance la ci moom chance la ci ñëpp mhm. ngir yaram ak tegginam mhm. bi mu ñëwee fi mhm. la impliqué la la samp yar ak teggin amul benn rajo bi ngay wala bi ngay dem nga summi sa dara dul fi fii rek ngay sa dara boobu yar la teggin mu ñu wiri sabu allah guidaay directrice o woni hajjaay ñumma haa yetti technicien ji gaddugol samba ha yetti journaliste uji ɗi ha yetti armédes uji ha yetti waɗoɓe ɗe émission ngaji fof kominen jiɗi ɗum on minen jiɗi babude kamɓe noon jiɗi noon mi arde salminde mi juuroɓe mi feŋñina weltaram fewde e makko aywa yormi portable dokkumi ñumma kam ujunnaaji capan tati mi dokkumi ɗum aywa wonɓe ɗo ɓe mi timmi ujunnaaji joyi mi dokkumi ɗum ma moussa ko heeno jeyaa awa allah addi on min nulanaani on min tirtinaani on kono noon nde wonno moƴƴere so an waɗi ɗum tan allah waɗata heen ko moƴ waɗa heen seede eywa allah waɗi seede mi wiimo noon mi jaggiraanimo ko journaliste mi jaggiraanimo radio ngo mi jaggirmomi ko enɗe makko